Abdoulaye Ndiaye Ngalgou taalibe Serigne Abdoulaye Ndiaye bi xoolal li mu nu indil Abdoulaye Ndiaye Ngalgou Mauritanie la nu kenn mësta gis lii ci suba nii la nu ndekkee tey ci guddi nii la nu reere Abdoulaye Ndiaye Ngalgou indil la nu ba indil la nu lu eh, lay fay Abdoulaye Ndiaye Ngalgou lu lay fay barke alxuraanul karim ami naar Ami Njaay indi lanu France bilaay barke yonent bi xoolal ma lii cee Abdoulaye Ndiaye ngal gu loo bàyyi Ndakaaru Abdoulaye Ndiaye ngal gu loo bàyyi Ndakaaru Abdoulaye Ndiaye ngal gu loo bàyyi Ndakaaru Abdoulaye Ndiaye ngal gu sama xarit baa ngi nii barke yow laa gën a bëgg ci gaay yi billaahi dama laa bëgg da am fayda ni nga fase sa kanam gi moo tax ma bëgg la. Abdoulaye Ndiaye ngal gu indil na nu bay indil nu Mauritanie. bilaay barki alxuraan naar bi fii lay toog di saay xoolal ma li Abdoulaye Ndiaye ngal gu li mu nu defal daaw France la nu indil ren mu indil nu Mauritanie. bilaay Abdoulaye Ndiaye ngal gu yàlla na la yàlla fayal sama xarit baa ngi nii xool ko mu ngi noonu doomu buur la. sama xarit la tey suba dama koo tooñoon mu fas kanam ji. bilaay barke yoon ci moo bari fayda xoola buus yi ñëpp ay reer ñëpp ay reer booy da ngaa bëgg ma wane la booy booy da ne ñaaw nag booy sama rek ah ñëpp ay reer Abdoulaye Ndiaye Ngalgou lii la def restaurant yi gën a cher ci Ndakaaru la Abdoulaye Ndiaye Ngalgou indi ci waan bu Sidi Hadji Malick cëm madame Ndiaye ngi noonu barki alxuraanul karim madame Ndiaye gi noonu yàlla yàlla guddal sa fan tamit la wér Abdoulaye gu xam na li def doful ci na jàpp ko billaahi wallaahi porte bonheur dafa ngal goo ngi nii ngal goo ngi mooy jàmbaar yi fëkk tëdd Amina njaay ngal goo ngi noonu taxaw ak madame alxuraan maa ko xam ndeysaan ah. waa jaa ngi nii de masi la fatim yambu ngay njaay ma joojo sira daawur njaay demba fatu kolor borom maami nit ci ndekki def nga lu ne barke yonent bi def nga def nga de